moom ak ki nga xamante ne mooy Ama Dia xale bu bëri biriw bi xale bu bëri coow bi démb rek seeti woon nañ ki nga xamante mooy Ama Dia moo am bal yoo xam ne sànni na ko ki nga xamante ne mooy adversaire muy nëb tey nag ko nee jëlee nga wax ci yow dara ci kooku ci adversaire yi ñëw jël si wàll tey nag ñu jël si ko moom nëb dañ waxtaana moom ci bi la am ko yombul Ama bëri na biriw bëri na coow waaye ki ñu jàkkaarloo tey moom tamit ku neex la ku doy waar muy nëb dama koy nuyu moom champion bi nëb jox ko mu nuyoo après ñu woy li nga xamante ne mooy waxtaan bi nëpp ñu ngi lay nuyu di la ziar. ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay di la ah. fay sa nuyoo. Mhm. di la ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu bopp. Mhm. di ko ñaanal képp ku ñuy seetaan mbokk internet yëpp ñu nekk biir réew ak bitim réew. Mhm. waaw di tàmbalee nuyoo bi fii ma dëkk mooy waa Kër Massar. Malika Boune ah. teen ba Miami favelas fii ma dëkk rawatina fii nii. mooy mafia turbine beeg mafia. Miami waaw sama gaayab mhm. waaw bu ma limee rek damay juum mhm. waaw mhm. ñëpp képp koo xam ne day bëggee Nëpp Touré rek doomu parcelle doomu Kër Massar doomu dëkk bi maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di la siyaar di la ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu bopp waaw ay ci na solo nu la nuyoo moom Nëpp champion bi Nëpp la waral turu Nëpp bi turu yi neex yi nekk fi ngay tudd Nëpp waaw Nëpp bi daanaka lu fi fekk la rek lañ mën a wax waaw ndax Nëpp bi moom nekkul loo xam ne ñun ñoo ko jox suñu bopp sama mag lañ ko tuddee woon. Mhm. sama mag tuddee waat ma ko. Mhm. waaw tur boobu nag moo dem ba law moom tur boobu ñu ma juddoondool dëgg dëgg dëgg ñoo xam sama tur original waaye ñeneen ñu dul ñooñu xamuñu mhm. sama tur. nëb nëb rek ngay dégg. waaw depuis ba ma commencé xam bi ba bii nëb rek laay dégg. waaw nëb nga tur boobu tamit. d'accord ma ñëw indi ko si làmb. mu toog moom laa mbappatee moom laa bëree arène. d'accord waaw donte mbappat nag amoon naa tur yu bari. mais nëb bi daal. moo gën a siiw sama àdduna. Mhm. waaw ku ne nëb na parcelle lu la jëlee parcelle wala ba tey yaa ngi parcelle. parcelle tuxu rek waaw ndax fii maa ngi fi tuxu 2020. Mhm. laa fi tuxu si. Mhm. waaye mu mel ni fii laa juddoo. fii laa màggee mu mel ni fii laa juddoo fii laa màggee fii laa yoroo. ndax dañ maa accueillir ma ñëw ñu bëgg ma. waaw. mooy loolu mais parcelle ba léegi man dama fay dem. Mhm. yi may wax ak yow nii bu ma contacté fii ñett fan damay dem parcelle am fa ñaari fan wala ñett. Mhm. ñibbisi. Mhm. waaw lu ñu naan picc ngi si kaw waaye xel baa ngi suuf. d'accord waaw. mooy loolu waaye doomu parcelle laa doomu Kër Masar laa. li ma am fii moom laa am parcelle li ma am parcelle moom laa am fii. chaque combat kaar mhm. day jóge ñaari kaar day jóge parcelle fii ñetti kaar daf fiy jóge ndeysaan waaw mhm. chaque làmb ba mhm. nga jël combat boo xamante ni combat bu bëri coow la dox sa diggante Ama Dia euh, numéro 2 ndax ku ne am xam ne temps yi moom mi ngi euh, toj li nga xamante ne mooy réseaux sociaux yi aussi gis nañ tamit temps yi nit ñi niñ ko joxee bopp nëpp choix bi lu tax nga jël Ama Ama Dia numéro 2 waaw ah, Ama mooy dama jàpp ne Ama Dia la comme yeneen mbër yi rek waaw ndax tey jii xam nga làmb lu ñu naan du ab maas dabante la. Mm-hmm. donte moo ma mag. Mm-hmm. mais maa ko njëkk si si làmb arène boog ndax xaw ma kañ la mbapat mhm. waaw léegi nag kom Ama Dia tey jii nii ma jël ko daf ma leer ne bu ma ko jëlee daan ko dina bokk sama yoon loo xam ne sama palmarès si lay kii mhm. loolu rek moo tax ma jël ko mhm. waaw di ñaan yàlla may ma ndam si kawam nag le 24 novembre incha allah waaw aw ma mënu ma yalla moo am yalla moo mën yàlla la ñuy ñaan mu may ñu ndam si kaw Ama Dia numéro 2 jël bu amul benn werante waaw mbër la comme yeneen mbër waaw gënul danger mbër yi ma bëreel gënul mm. yamba mbër yi ma bëreel. Mm. mais mbër la daa bokk sama yoon moo tax ma jël ko. Mm-hmm. waaw nga def ñaata combat ren. man 13 combats la am 10 victoire 3 défaites. 10 victoire 3 défaites. kon Ama Dia moo tax nga jël ko euh, damante la ci làmb wala xaalis a tax nga jël ko wala li am tur moo tax nga jël ko. man damaa jàpp ni bokk. comme mm-hmm. daa bokk sama yoonu làmb. bokk sa yoon. waaw. Mm-hmm. ndax journée bi nekk woon la 24 bi la mm-hmm. ñu waroon la 4 août la ñu waroon uh-huh. waa jàmbaar gis ni ñaar ñi seen làmb neex na da day ñu dugalaaj la 24 novembre. di leen nuyuwaale à sax. di nuyu Mansour Papa Sow assurance mhm. sama ménagère assise di mhm. ziar ñëpp di béggee ñëpp mhm. xam ne tey jii ni ñun dàkk ñu fi bëri wala ñu ëpp fi mbooloo bañ tëgguñu dëgg la waaw mais seen baax moo tax ñu tëgguñu uh-huh. yàlla bu yàlla tax yaakaar waaw yàlla mottali yóbbul ñu bis bi si jàmm waaw ba seen yéene ñu am si lu fooxe seen njort bàkki Nabil Moustapha waaw mais Amadia mbër la comme mbër yi waaw ndax bëri na ay caatu fora ñoo gën a siiw ay caatu rëbës ay buusita. Mhm. te ñoo ñëpp bëre na ak ñoom. Mhm. waaw mhm. kon mooy lool. mais temps yi moom bës bi moo ko yor. waaw temps yi moom mooy mooy euh, mooy mbëru jeunesse bi temps yi moom gars yi moom lañ jox bopp moom Ama Dia. waaw bës bi daal na bañ a mel ni bësu pasi rek. bësu lan pasi saf suukar ba mu neex la nga wex. <laughs> mu daal di wex. dafay bari mbër ko fi ah ci Ama ci mbër la bokk mbëru pas. du ma tudd tur waaye am na mbër yoo xam ne siw nañ ah. mais seen siw siw pasti la rek. comme mbër yan la. dañuy non du am na mbër yoo xam ne un an si ginnaaw ñu ngi leen doon coow. Uh-huh. kenn waxatu leen instant ñeme ñeme woo leen cent mille. ma cité la kenn bu cité ngay wax. bu cité moo gën a fay ñëpp. <laughs> fay laal dina dëgg ay Laurent ak ñëpp <laughs> koo si dégg. moom booy moom daa mel ne temps nangu seen bës. la la la temps fay nañ de. booy yëpp ama ca tamit damay bañ mu xew mu mel noonu. ah mais ama est fay fay ko dina yomb man mën nañu wax ne euh, le 24 bu ngeen jàkkaarloo kenn xamul na kuy daan yàlla moo xam kuy daan que le meilleur gagne. bis bu bis boo amee ndam ci koom du fay nga foofu. man daal ah man daal <laughs> ma ah. bu ma ko daay daay yàlla mu fay waaye na xam ne day daanu si de. day daanu si waaw la 24 novembre ama nee na ama nee na yow mag nga sa tent bi nga def di xale xale waaye paa nga yaa ko mag. ayaa ayaa. Uh-huh. ama ja ba muy jël avance bi pour moom hmm. uh-huh. ji ba léegi. Uh-huh. dimanche laa dul entraîné sama àdduna dimanche. te Ama Dia daa tax man comme bu ma bu doon laay def. damay def cinquante ndax xamala moo tax. moo tax genre Ama Dia ñoom daa métti. tànguñu mënuñu bëre mënuñu xeex mais benn nit moo indi gis. Mhm. ñaanal leen. Mhm. ngir nu ñu mel. Mhm. loolu nag maa ngi ñaanal yàlla na yokk. mais le 24 bu xalaat victoire. waaw. mais bëri bi ci Ama xeex bi ci Ama Dia est ci nëb. non non moom wax dëgg neexal boo bëggee dégg dëgg. ay mbokkam kenn ñeme ko a conseil na ko taxawal xeex nëb. da kaa sañ. ah ma gis nga combat yi mujj yi passé yi mu dafa taxaw jàkkaarloog face à face. kum fi dóor. xeex dóor na fi ay mbër. comme comme lambam bi passé. kàlla lambam bi pa Ama léegi man dama lay laaj. en mm. tant que journaliste yaa ngi mm. lamb ji kenn mm. mënu laa na. Eh, bu ma laaj laaj sa bopp. loolu dama lay laaj. Ah. <laughs> Ama Dia. Ah. fi daan kan moo fi am deux combats. mais mbër la daal. waaw mbër la kii fi am deux combats mais mbër ni muy jëlee combat pour daan daa yomb. buntu CNG lay dem ay mbokkam woo ko ne am na ko enterré hôpital amul njëgu ordonnance mu dem jël la pour nga fay say ordonnance mais kuy xëy di sóo di kàngoro di PVC di dem salle di dem fépp di boxe. Ah. <laughs> du la jël moom tegu la ab néew noonu comme nim nim ni favoriser ne moo la mën moo la doole moo la dàq bëre day ñëw attaqué duma la daan la doo dara. ayaa ah. gis nga gone bu la nee sama maam nee na ma. Mhm. neel tekk di ko boo ko magee tamit magoo maamam. dëgg la ama ja si ay pexe la nekk. Hmm? pour moom ni ma magee noonu la ma magee ëpp xel. xam nga dañ naan ku la mag ëpp laa sagar loolu amul mm-hmm. ku la ëpp sagar dalaa ëpp yére yu muy xotti rek barke Seydina Mohamed mais sagar moom mm-hmm. doo gis yére bu baax naan ay ëpp sagar ak kii mm-hmm. ñoo ma mag mais ëpp ñu ma xel xaafisul Qur'an la 2008 laa mokkal alxuraan bakara ba naasi 6066 aaya kafaru di 7 amanu di 20 kon ñoom mun amuñu luñ may jaay maa leen gën a yeewu damaa daa sedd ma sàngu mais nelaw ma de <laughs> barke Seydina Mohamed bu may sangu ku ma si yër ñàmpe kanam laa lay dóor ba saabu bakkat mhm. ne la toppal fa la mhm. non yow mais dañu gis arbitre bu sifflé est que nëpp bu Ama ja ñëwul nëpp dina jëlee Ama aya man sam man man si géew man bañ na ko ba sama làmb bu gën a bu gën a yàgg mhm. bu gën a yàgg maag bu ndaw la quatre minutes la taxawul man ba arbitre man loolu laa muy mbapat contact lépp dox jëm ca rek man Baye Fall laa dox mhm. jëm ca mhm. une deux ñu jaayante kan kan mhm. kenn dëpp ma jàpp la sànni fee te Ama Dia moom xam naa ni man sax ay kuy légère laa koy dóor ndax ngaamam yooyu ma gis antanul sama loxo <laughs> ngaamam Ama daa mag de man suñu photo bi laa gis ma xool kanam bi nu mu rasee dama ko envoyé sama bu nekk États-Unis uh, uh. wóor na yàlla mu ne ma kii uh-huh. mu ne ma <laughs> mu ne ma papa kii moo la mag fu. mais magante bi lan moo tax ngeen koy jiyante yéen ñaar ama nee na yaa ko mag yow nga ne war yaa ama jaa la mag. ama ja 1990 la. yow jël ngay atam ba xam li mu am barke Seydina ma Ousmane Dieng dama kaa xam bu baax a baax a baax. Ousmane Dieng la tudd. billaahi walaay boo toogee léegi mu romb la fii. te day dox ba weex. <laughs> barke Seydina ma xam. lan lay dox ma damaa xam xamu man bësam moom wala moom bësam da kaa doyul. fii lay jaar weranteeg jigéen ñeeg góor ñeeg mhm. ampleur man ak moo tax mos na maa romb fii di wax du ma ko faale mhm. nee naa ko ngéntal muus moom mhm. <laughs> ngénte muus mhm. bu fa gitaas ñëwee di ndawtal daa daa dëgg la <laughs> billaahi wallaahi <laughs> ah. li may xaar ak li ah. may faj maa ah. am na solo di leen fàttali ñu ngi dalal ki nga xamante ne mooy nëb di adversaire u Amadia Amadia ak nëb na xaw ci gën neex ndax bi ñu dem Amadia sànni na ay bal ki nga xamante ne mooy nëb nëb nag mi ngi jël bal yi di ko ko sànniwaat mais nëb dañu gis yaak Amadia da nga jël benn sëriñam woo ko di ko vocal pour mu jàpp ci combat da ne bokk sëriñ wala Amadia seeka day comparé lu bokkul kooku maa ngi koy nuyu sax sëñ Cheikh jëmm mhm. waaw borom mbuur mhm. koriande mhm. ba may bëreeg Mass Bantamba la sam benn xarit bu bu tudd Moussa Ndiaye dëkk parcelle boole ma ak moom ñuy waxtaan mu ne ma Mass Bantamba dalaa jiitu si man mais teew li ñaan ñëpp du ma si ñaanal kenn parce sama mbokk taalibe la ba may bëreeg Ama Dia tamit xaw man day ñaanal Ama Dia man nemmee ko ko mhm. ayaa est-ce que ne man barki Seydina Mohamed sëriñ yu bari lu ñu may meree mooy dañ may defaral gàllaaj ba pare ba war kaa jël si du ma fa dem te doo fa dem barki Seydina Mohamed mhm. ndax maa lam yashkur naasa lam yashkur laaha mhm. yàlla moo ne ku santal nit munoo ma sant man mii di yàlla waaye lu mu ci tegaat moo am solo astil gayneel si la alma bi xal bi xol bu sel moo may ñaan alxuraan yi da ama attanu Seydina mu ne ma xol bu sell moo may ñaan ma naw ko mhm, mhm. moo tax tey jii nii man sëriñ daf may defaral galaaj ba ma war kaa jëli naa ko tay suba tay suba tay suba mhm. gis nga ba ma voyagé ni ñi ma dégganteel ñëpp ba léegi amatul ku ma si gis te man dama lay joxaat benn information démb am daf maa woo téléphone moom ama ja am amen sëriñam bi koy takkal ngeen sëriñam boobu nga xam ne tey jii nii ba mu ñëwee fi jox naa ko sama ay seer ñu jàpp ñu dóor ñu dóor yi métti sëriñu <laughs> am bi ngay waxal de mu woo ma di ma napp yooyu nga xam ne xale bu ndaw bi boo ko defee kii naa ma bu làmb desee ñetti fan boo nelawee ma dagg sama kurus man na kayo sa kurus yooyu nga yor ay ferakatenne mu mm-hmm. noo ñaan lu yàlla dangu parce que sëriñ nga ni ba pare yow di yor di yor kii nu mu tudd comme jaaykatu reen yi commencé am xaalis yi <laughs> vitrine <laughs> yow yow sëriñ nga kay la ngay ñaan neera daa am bureau <laughs> ah. Ah, man daal mais mën na am bureau loolu ci dara. waaw ah, na am bureau danga nëb nëb yow barki alxuraan karim. Mhm. moom bu bëggee après bu amee bu amee ay client mu mu ñëw mu bindoo ko ay xam-xam. mais combat bi passé mu indi woon Ama Dia te Ama dafa am dam dam. bu la bëgg isa xam ne am woote na 30 ans kenn xamu ko ba Ama Dia commencé bëre la ko nit xam. moom am waaw moom sëriñam am na sëriñ yoo xam ne dañuy ut buzz si mbër mbër yoo xam ne dañuy ut sëriñ si buzz. Mhm. d'accord. billaahi wallaahi mhm. man doomu ñeeñoo géewal laa. bëgg nga téye ko làmmiñ du lekk morom ba ta ñorul. te boxam jaala neex a jàngal yudde mhm. barke Seydina Mohamed mhm. te mën a waaxu xam fi nga jëm ak a gën mhm. gis nga tey jii ni mën nañoo toog fi di wax mais bu ñu arbitre bi raaye pare na si ñun <laughs> de billaahi wallaahi te man maa négocié wul dara négocié billaahi wallaahi taalaay damay làmb danga mel dafa meral da moo tax man làmb ji premièrement li mu njëkk a yàgg moo ma moo tax Ama Dia di wër di wax nii nii nii rek mais bu la billaahi wallaahi mbir mu ko fi joxoon avance quinze jours du ko jël mais li muy am ay un mois plateau neex. Mhm. ta yow xam nga Aya sa genre dañoo mën communication. boo jëlee mbër day mel ni kañ gu dëgg dige dige bàkki Seydina wax day wax a wax a wax ba lee xam saf ya <laughs> dama loolu moo may met billaahi amajo troisième âge la bu demoon Sénégal billaahi walaay durant day ñëw fay facture dem mais yow mais yow nëpp di bi surprise amee amaja daan la dina loolu nan ko nga koy dundee ci koñ bi léegi amaja bu may daan dan la may daane ah nu lay daa mën a bëri mënut bëri wala daa mën a xeex lan la man kon Ama Dia ginaar gu dof la ah, ginaar gu dof la kenn xamul ñu koy billaahi ginaar gu dof la day toog naan billaahi maa ko mën mais audio yi nga envoyé sëriñ bi kan moo ko transféré audio yi mooy li ma lay wax rek xam ma wax yooyu dugg yi sëriñ boobu xam naa moo envoyé waat Mm-hmm. ma Dia kii mm-hmm. mais kooku teewul man sama sëriñ la uh-huh. ndax man murid la uh-huh. te man damaa nekk murid boo xam ne nekkul damay joxe sam bopp ba pare rocci laa min man fu mm-hmm. ma la ne foofu la rek foofu la i sa xam ne ayaa ah, man sama mbokk taalibe moo ma gën a sama mbokk deret barke Seydina Mohamed man taalibe Serigne Touba laata murid laa maam Bamba laa yaakaar ak maam Cheikh Ibrahima Fall moo tax man booy mbubboo maam Cheikh Ibrahima Fall sax dama lay bëgg billaahi wallaahi taala man tey jii nii billaahi wallaahi taalaay la benn système bu yaboo mbër bu ko neex nag kii papa Amadou Touré laa tudd sama yaay Kumba Mbay la tudd yaa ngi joxe sa tur de déggoo ma de mbaa duñ la liggéey déggoo ma de papa Amadou mhm. sama yaay Kumba Mbay la tudd sama papa Ousmane Touré la tudd mbar amul lu may ragal ndax lu dul yàlla neen la barki Seydina Mohamed fii koo fi yaakaar mhm. yàlla yaakaar gis nga toog bii ñu toog sax suñu borom la neex dëgg la loolu mais kon lan moo tax ñuy ragal. Mm-hmm. sëriñ bu xam dara dëgg-dëgg doo woote dangay toog ñu fekk si la. mais seen leen ñaanal seen turu vrai la ñuy soxla duñ soxla turu mbër mi. waaw yow man turu mbër man moo tax ku ci am combat turu mbër mi vrai ngay lijjanti. soxla woo turu mbër man man man turu mbër su ma amee jàpp ko. yow jàpp nga turu mbër mi dëgg-dëgg turu Ama Dia. Ousmane Dieng la tudd mais soxla ma ko Ama Dia numéro uh-huh. ko daan. mun nga ko cee liggéey ci Ama Dia numéro 2 bi. billaahi wallaahi rek. Uh-huh. tur boo wuyoo ñeent fukki guddi 40 uh-huh. si liggéey da lay jàpp. dëgg la. waaw mais yàlla bind zaahir bind baatin tey jii nii am na nit ñoo xam ne duñ dañoo war a takk naan am na ñoo xam ne waruñoo takk waruñoo naan am na ñoo xam ne dañoo war a sangu dañoo war a kii léegi daa am nit ñoo xam ne kenn mënu leen liggéey am ñoo xam ne boo liggéey jàpp leen man nag ndam ma de. Mhm. mais man cet cet mhm. rek a ma sonal. ndeysaan barke Seydina Mohamed mais mhm. ku mu neex dama liggéey. man sama yaay daa liggéey sama kër papa. ndeysaan barke Seydina Mohamed sama yaay sombi na. ñu lekk. jaay na ay yéreem ndax ñun. barke Seydina kon ñun ñun bu ñu amul lu baax kenn do am lu baax. gis nga làmb nii day jeex de. dëgg man maa ko ah, en man nëpp. lamb jaxaluma def la bon. Mhm, mhm. mais actuellement sa yaram bi mi ngi consommé mi ngi nekk normal. waaw yow Maroc laa jugee jàpp la gisoo mënuma xeesee nii leer ah, nañu. Ah, ah, Maroc laa jugee. mais ak bi liggéey bi nan la demee woon foofu ak Maroc liggéey bi noonu. Maroc daal comme entraînement la lekk récupérer doo dem fenn. Mhm. comme ni toog bi ngay toog. comme nekk si koñ beeg yooyu noonu. dagay dangay entraîné. waaw di leen nuyu waale à waaw waa mhm. Bouskoura fu ma newoon mhm. waa Tanza mhm. waa Marrakech waa Daxla ñoo ñëpp maa leen di siyaar gis naa nuñ ma jàppee gis naa nuñ kii di siyaaraat Pablo Fall moo ma yóbbu woon taalibe maam Cheikh Ibrahima Fall borom ngaay waaw moom fa yóbbu jox ma xaalis bu bari waajal ma mooy loolu mm-hmm, mm-hmm. billaahi walaay mm-hmm. di ko santaat bu baax a baax nag waa di sant fameem waa di sant jabaram koddu uh-huh. ah ñoom uh-huh. Aysa uh-huh. puy ah Alla maam Ndiira mama ami waa gàlle bi yëpp daal fami Baay Maali Faal yëpp waa Sedaaf ñoom Abdou Aj ñoom Asanka kosu kosu mhm. Diop Pro. kosu mhm. mhm. sang sama kosu boxeur. gaa yëpp daal su ma limee damay juum. waa Sedaaf yëpp. ak waa Ngaye Mexe. boo xam ne mooy sama dëkk. waaw maa ngi leen siyaar bu baax baax di leen woo si combat bi. sànq dama la dégg ne Ama Dia dafa juum da nga jël avance bi a la première fois may doog a génn Sénégal ndax lamb. d'accord te si Ama Dia. la feeñee. waaw. moom tamit maa ngi ko dégg mu naan mbuur la nekkoon ak di entraîné. dem na ba ñëw état la andi de. kan. ah ma indiwul xanaa gisoo Ama Dia nag. Ama Dia Ama ah, indiwul état. ba pare ba pare man lu ma yéem ma yow indi état boo xam ne yow entraîné nga ne fi nga nekkoon daa baax nga ñëw di sëkkat rek. daa daa noo dafa tooy wax na ma dafa tooy. mais bu tooye bu amul njëgu kilo banana wala kilo yàpp du jënd ngeer. déet wala mu jënd ngeer. mi ngi lekk yàpp. barke Seydina Muhammad bu la romboon fi da ngay foog ne Sococim lay xëy. day weex tàll tàll billahi wala léegi mu romb la fi. mais yow sa état état ak Ama Dia bu gën a baax nga foofu. état mag ak xale la instant yi Ama mag moom. Uh-huh. lu muy entraîné weer man semaine laa koy entraîné. di uh-huh, uh-huh. mag ak xale la. mais da xees ni yow. da nga ñuuloon man dama man ba ma njëkkee dem Maroc rek ba ma sangoo douche bi daa tilim nekk naa fa une heure de temps di ko bomb pour mu set. <laughs> Bakki Seydina Mohamed. <laughs> ndeysaan xasuma waa Sénégal mais nag comme entraîné da ngay entraîné ba pare Sénégal gisoo. <laughs> Uh-huh. oto mbalit bi romb la uh-huh. yóbbu état bi yëpp. <laughs> Uh-huh. fee nag loolu amu fa. ndeysaan ayca looy wax Ama Dia mi ngi lay seetaan. Ama mooy na dëggal boppam rek. te xam la le 24. laajuma ko dara dara dara xam na laa laaj. moom na taxaw rek. soxlaw ma leneen. Mhm. bu mu def action di sonal boppam. Mhm. wala muy xeex ba ma kay gaañ. Mhm. wala na taxaw rek. waaw. baax seedi naa wax moom na taxaw rek. waaw. ayaa bu ma la waxee dëgg. billaahi wallaahi taalaay sàngbalee maa la ka négocié wu ma lamb ji dama ko bëgg. waaw lamb da koo bëgg moom mi ngi feeñ ci yow. barki Seydina Mohamed dama bëgg lamb ji. ndax damaa xam fi mu may yóbbu. ni ma doon jox beneen avance suuf ma leen balaa maa laaj beneen avance. damay tàkkali googu waa ji. ndax daan Ama ja xam nga fi mu la mën a yóbbu ci laa. billaahi non am na tur sax mais mm-hmm. comme Ama Dia ñi mu daan ñëpp man xaw billaahi walaay xaw ma leen. billaahi mm-hmm. man bu ma la waxee dëgg. Mm-hmm. ñi mu daan ñëpp bu ñuy bëri ak Ama Dia laa li gis. ñooñu yow xam nga leen. waaw am na ma xam am na ma ci xam. kàlla ku ca <laughs> kàlla li <laughs> ma. bàyyi tooñ Ama champion la kàlla. <laughs> waaw wax ma kàlla Aya. non ama sax ku bi ni nga nekkee sama waay noonu la nekkee sama waay bëgg ma sànni xeer non léegi wax ma ku mu bëreel ñoo xam la ko wax man de billaahi wallaahi xaw yow xëy naa fa xëy ah. dem naa fa sànci trois mois ah. xaw ma caatu yof numéro deux te mag sekk ndeenaan ñoo bokkoon daara ah, sekk ndeenaan meen waaw mi nekk yow ñoo bokkoon daara gin bu yof sama waay la ndeysaan te xaw ma caatu yof numéro deux ñoom maanaa bu yof waaw mhm. xaw ma ama abu semel <laughs> xaw ma kii comme ay des hôpital man daal laa muy leen neex na. doy na waar ay ca nëpp ngeen di bëj bëree ci journée bu mag euh, muy jour combat euh, combat royal dox ci diggante Modou Lo mhm. ak euh, Siteu gis nañ keroog signature contrat bi Modou Lo jógee di baax dañu gis waa parcelle bi comme yow gis nañ la nga jóg di bàkku sa lien ak Modou Lo la. waaw Modou moom wax dëgg neex yàlla ñu ngi koy nuyuwaale sax à passage. Mhm. Modou Lo du ma la suñu kii la mais sam papa man. ndeysaan waaw parce que man bu lamb lamb su ma ko bëggee rek. Mhm, mhm. à cause de Modou Lo. ndeysaan xam tey gis ku nekk ñoom mbëri magi naan Tafa Gueye wala mhm. Tyson mais ñun Modou Lo mooy suñu idole. macha allah. parce que ñoom école bu ñu doon entraîné fa laa doon jàngee PA 10. fa laa doon jàngee. ndeysaan léegi moom su ma ko mësaan kii ndax may jaral man. comme bu ma defee comme bu ma jàngee nii ba une dama dem yéen ci seen kër ba cinq heures. ndeysaan ma topp ko. billaahi wallaahi taalaay mu doon nit koo xam ne nit ku mm-hmm. baax la mm-hmm. ku ku ku ku ku mën nitam mm-hmm, billaahi wallaahi taalaay waaw ndax maa ngi moom bu am na photo yoo xam ne naa ko lijjanti naa war la ko da nga naan du man 2008 laa lax ba ba ma jugee xel kom boobu xaw ma dara moom laa doon saxekat baake Seydina mu doon nit ku baax di ko ñaanal le 24 novembre nag yàlla may ko ndam ak waa parcelle yëpp waa parcelle heure ba 26 moo sabala biotop sama mag sama idole anaconda uh-huh. papa saw Pa Sow numéro waaw gaa yooyu yëpp. Uh-huh. waaw mooy loolu. <laughs> parce que Seydina waxuma uh-huh. nga xam mooy loolu daal man parcelle sama lépp la man uh-huh. benn xaaj bi parcelle benn xaaj bi Kër Masar. ndeysaan baak Seydina Mohamed. waaw di ko ñaanal ndam ci kaw Siteu. te tamit nag voilà waxay indi wax journaliste yenn journaliste yi nañ bàyyi lu ñuy def. démb naroon nañ ma fi xamloo. maa ngi connecté ba si gis benn journaliste dugal naan Siteu oo beleese barki alxuraan bu Siteu juuma ba beleese barki alxuraan làmb yëpp dina beleese. lu billaahi wallaahi la 24 novembre bi ku ko yàq. Ah, ah. te yow bëggoo mu yàqu ndax dañ cee a bëri te mu man léegi ñoom ñaar léegi ñoom nañ leen ànd la ñun ñu bëre. waaw yéen ngeen bëre waaw waaw. yow da nga wàccoog Ama Dia la vingt waaw noonu la demee nag. <laughs> Ah. billaahi. loolu am na solo. te wax naa ko benn wax nag. Mhm. comprendre ko nee naa ko set bu bees la ñuy xaxar mais set bu màgget kenn du ko xaxar. kan mooy bu bees bi. waaw baax na damay laajte poussière bu bi. ah monsieur min na lal min na diggu laal min na. <laughs> Eh, daa am ay doom. waaw dama lay rek am nga soxna. man waay sama taw bi daara nga am nga soxna. yaa koy nëb kon doo xale. Eh, man xam laa magee sama doom yow. 17 ah. 18 ans. yaay magee ko 14 ans. kon yéen ñëpp am ngeen ay mais maa ngi moom bokkuñu bu pare paree ñu xool seen soxna ba xam ñoom it dañu. bu ñu demee bu Ama Dia kon day nëbbu jabaram de <laughs> yow xaa gisoo sama jabar ya. non gisuma sa jabar. <laughs> Eh, boo gisee bàyyi. <laughs> ay ceen ñu ngi lay jaajëfal di la kontaan ndax ku ne xam na ne eh, journée bi e jege si na ba pare. Mhm. yàggatul le 24 euh, novembre incha allahu rabbi combat bu mag combat royal dox ci diggante Siteu ak euh, Modou Lo. Mhm. mu ne combat boo xamante ne Sénégal yëpp dañoo ñoo koy xaar mais combat nëpp. ak Ama da cee parce que amateur yu amateur yu ci hmm. bëri boobu la xaar. ñëpp a koy xaar combat bee ay wax nëb wax combat boobu daal combat la boo xam ne ñëpp ñu koy xaar. tey ñu def tàggoo bu du tàqalikoo rek dem ba beneen xam naa du ñàkk da nga nekk say activité incha allah bu combat bi jeexee ku ci daan sa kër la ñuy yendu man jour la fi def nii man sant naa mhm. li ngeen koy seet ko de. ndax xam naa bi jeex. le xam naa ni moom ku koy seeti moom mhm. ay ibuprofène nga koy yóbbul. sa loxo yi mën naa dóor Ama Dia mu daan. <laughs> man ah, ah, ñaata kaaw laa am. waaw waaw de. ñaata kaaw. ndaanaan nga de dama ko dóor mu daan caat fora daa péri. ñaar caat daa daane reporter. <laughs> na ci lu mu xamul. <laughs> man maa dul nag man maa mënul négocier comme jàkkaarloog mbër nii te dóoruma ko. Mhm. mënut a nekk il faut nga ñamal ko. loolu fo man man suñu écrire sax bu ma contacté ba si yàgg bërëb bi man dañuy xeex. billaahi wallaahi mhm, taala mhm. gis nga ni ma xeesee ni loolu léegi mu ñuul mhm. naa man dof la man man instant yi sama àdduna ñett yi lekk ba suur naan ba mandi waaw ma la beneen jot ndeysaan billaahi waaw di santaat gaa yi may jàppale yëpp waaw di tàmbalee si waa parcelle 1 ba 26. Mhm. waaw ay see nekk parcelle yëpp. Mhm. ak waa Kër Massar ay see nekk Kër Massar yëpp ak sama fierté. Mhm, ndaali ak ay see déggoo. waaw barke alxuraan di gërëm sama gaay sama mafia waa Miami. mafia turbine ah mafia. ay bu ba fekk waa yëmbali tey ngeen dee. waa Ayaa Ndaw Ayaa Ndaw yéen Ama Dia dañ daan noppal Ama Dia ay supporteru meer ak ay paalaam ay moroomam duñ ñëw estat ah barke alxuraan fii billet dix mille la ñuy jënd wóor na alxuraan duñ ñëw fii xoolal fii xoolal fii xoolal fii. yéen de bu leen waa yëmbal jàppee. waa yëmbal ay bu leen waa yëmbal jàppee baax na. waaw waaw waaw. xam nga déggoo xale yi naan temps yi yëmbal yaa tuut am na lépp. waaw waaw waaw. xanaa xamoo fii moo jur yëmbal yow. fii moo jur yël fii moo jur yëmbal mais waa yëmbal temps yi ñoo xew. waa yëmbal bu ñu bëggee dem Kër Massar nii la ñuy jaar. dëgg la de. nii fii la ñuy jaar fii ah. Malika bu ñu bëggee dem Kër Masar fii la ñuy jaar yow ban nga jógee benn barak. waa jaar fii ñëw fii wiiri ñëw fii. fii amul yamba amul sàngara fii l'islam moo fi am ak diine. gisoo booy dañuy liggéey gisoo booy waaw. Baaki sëñ waaw Baaki alhamdulilah. heure bii nii nangu nañ bun bun. heure bii nangu nañ ko Miami nangu na ko. bilaay ñuy jël yëmbal. bilaay boole ko si Miami. si c'est Miami. voilà. Ama Dia ndróo bu ma ndróowal ak Ama Dia de ginaar bu feebar da nga naan may Ama Dia. kii mooy kii mooy Iba boo xam ne du pousse du passe pour combat bi duñu moromam barki borom jënde. saa yi daa uti da ngaa de. billaahi bi ni leer nañu indi na ko. te bu jaabee Ama Dia da wàccee kii bu defaralul Ama Dia laa la mooy dugg defaral ko kii mooy judd ës. bii rek bii rek ñun kon Ama Dia dawul suñu yaram ñun ñooy xoolaat yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen Ama Dia jaar jaar ni nii rek coow lamb moo leen boole mais bu nekkoon coow laam amaana heure bi nii kii du bëreeg Ama Dia. billaahi loolu nag yaa waaw di santaat ñëpp ñu may jàppale rek. waaw di sant sama doom nday Diaz 2. borom dëkk bi. sama waa ji bu mag. billaahi am na combat mais amagul da waaw barke alxuraan non damaa bëgg nga sees ko boo ko seesee nga xam ne mbooloo si moom la yam moom lu gars di jaay da kay maye de. ñaanal la de. barke alxuraan. <laughs> waaw di santaat ñëpp ñu may jàppale nag waaw. di sant waa États-Unis sama mag papa mm-hmm. Afia Touré mm-hmm. ah mm-hmm. Ndiaw Touré Abdou Touré Jimi Gueye Ibou Ndapa Kanté waaw ñëpp ñu may jàppale waa États-Unis yëpp baara waaw bu ma rek damay juum ah waa ngaay nga xam ni mooy loolu sama dem sama tukki si ñoom la jaar muy Pablo Fall di ko di gërëm njabootam waaw di gërëm famem waaw waa gàlle bi yëpp su ma damay juum waa SEDAF bi ma nekkoon waaw di gërëm sama xarit nag sama doomu nday Abdou waaw koo ni koo xam ne ba ma dalee bërë ba léegi musuma xam lu bolog bi di jar chaque lamb ñaari bologi tikke la may jëndal lu mu ndaw ndaw may ma xaalis ne ma waajalal waaw di gërëm sama sama sama sama doomu nday njaw ma ko di sama seex waaw mhm. di gërëm waa waa waa waa soppiram mhm. waaw mhm. ñoom tafaa ñoom Tafa Diop Tafa Diop borom saagi waaw boo xam boo RTS lu mu jaayul baaxul waaw mooy loolu di gërëm Xaadim Diop di gërëm Cheikh Fall di gërëm famille Pa Pa Assane Diop yëpp waaw di leen wax ni combat bi seen combat la ñu ngi siy jàpp mais nañ ci gën a jàpp ayaa di lancé benn message ñun mbëri ndaw yi uh-huh. nañ gën a fonkaat suñu bopp dëgg la dëgg la ñun mbëri ndaw yi nañ mm-hmm. gis nga tey jii nii ñun bu ñu fonkee suñu bopp rek mm-hmm. ñu fonk ñu mais bu ñu fonk suñu bopp kenn du ñu dëgg la gis nga tey jii nii làmb mm-hmm. làmb làmb buntu mu mën a ubbi dafa bari kon ñun nañ fonk suñu bopp mm-hmm, mm-hmm. gis nga mbër bu ndaw warul nekk si ay ay toog signature mm-hmm. naan man malfaiteur la wala man kii laa wala non non xanaa xamoo lii international la gis nga nekkul fi nga koy defee nga koy seetaan moo tax communication daa am solo dëgg la communication ah. waaw mm-hmm. daa am solo. Mm-hmm. tey jii ba sama premier signature ba ma signature rek Ama Dia. Mm-hmm. ne ko yaa mag sama papa yaa yaa sama a maas yéen a kii. dama génn sama mag woo ma. waaw ndeysaan. ne ma lii lii wëg lii bu ko waxati lii wëg lii bu waxati. te après man ba ma tooyoo xalaat dama xam daa am. dëgg la waaw gis nga tey mun nga suñu émission bii ñuy def nii. après mun nañoo kii. nga gis gars yi dagg. di ko dugg tiktok di ko dugg da ngay ami njaboot. d' accord te valeur la valeur augmenter la civilisation de l'homme waaw waaw gis ah. doomu aadama tey jii mm-hmm. ne da ngay sàmm mm-hmm. sa sa sa sa nan la ko Modou Lo doon waxee sax mu ne mm-hmm. doomu aadama da ngay sàmm sa image tey jii nii loo wax dix ans buñ la ko commencé vingt ans si kanam da nga koy waxaat waaw moo tax man mooy loolu daal mbëri ndaw man laay gën a sensibiliser waaw ñu gën a xam fu ñuy teg seen mm-hmm. tànk mm-hmm. bàyyi affaire de mafia du noonu lamb du mafia gis nga mafia boobu ñuy wax noonu yooyu billaahi ñu leen gën a wagaa ngi mm-hmm. te du ñu mafia du ñu dara am na ñoo xam ne bu deewoo deewoo jotee rek ñu deewoo mais suñu yaay ñun nañ leen sagal quoi parce que dañoo sonn suñu gër bàyyi gis nga tey jii ni dara neexul ngay génn ñaan sa keede doomam moo fi doom wax leen wala doomam lañ jàpp ndeysaan doomam lay yóbbul añ loolu dañ ko war a sàmm dañoo sonn barke Seydina Mohamed xanaa xamoo géwal nee na ku mën dara sa ndaya ku mënul dara sa ndaya tax te gis nga jigéen nu muy liggéeyee mhm. doomam mhm. pour doomam judd ñu koy xool naan ko célébé yoon ba célébé yoon mhm. sa yaay mu see def loo xam ne mos nañ ko seew wala kii nit noonu la war a sàmmee bopp dëgg la dëgg la dëgg la te nee nañ boo muy jigéen laa jigéen si ñoom laay gën a delluwaat sax uh-huh, uh-huh. waaw gis nga jigéen muy bu amee sept ans ba commencé nu muy da see war a sàmm boppam. dëgg la gis nga tey jii mi ngi mel ne nga bëgg a takk benn xale yi. Mhm. boo demee fekk yaayam di julli. Mhm. ñëpp di julli seen kër. Mhm. moom mu mel ni ko neex. boo ko bëggee takkal. dëgg la dëgg la ndax bu màggee day dëpp. day dëpp dëgg la mais boo fekkee koo xam ne bu guddee yaayam boos saak. nekk si arrêt yi kii. Mhm. boo ko fekkoon muy julleeg di woor ak di dem Makka ak ñëw bu mhm. tak dëgg la de. waaw ndax kaana day fa seytaane day fa pexem jigéen na raw pexem seytaane. barke Seydina Mohamed moo tax nañ gën a fonkaat suñu bopp. gën a defaraat suñu bopp xam ne fii àdduna lépp loo fi gis si ay mhm. nett lay mujj. mag ñi fi mag ñi fi loom yëpp dem nañ. dëgg la bi laay dëgg la ñëpp dem nañ. ñëpp dem nañ ñun ñoo fi nekk te ëllëg ñun suñu doom lay doon suñu doom après suñuy sët nañ sàmm suñu image defaraat suñu bopp xam fu ñuy teg suñu tànk Serigne Touba nag nee na ku yorlu nag gàññ ku doylu moo ko jaaxal dëgg la bilaay ñun nañ doylu na buñ doyloo rek mm-hmm. lépp kii di la sant aya ndax déplacement bii ngay def mënoon nga kaa def si am na mbër yoo xam ne ñoo ëpp doyo ñoo ñu a siw mm-hmm. ñoo ëpp buzz mm-hmm. mais yéen da ngeen di dundee làmb dundaloo yéen dundal dundee woo leen làmb da ngeen koy dundal suñuy suñuy suñuy kii ngeen suñuy rakk ngeen barke Seydina Mohamed mm-hmm. moo tax yéen yàlla na leen yàlla sàmm yàlla na leen yàlla aar allahumma amin site bi ba doon télé boo xam ne moom la moom di yëpp di coow barke alxam yàlla am na ko man na ko yàlla na ko yàlla defal yow tamit nga jógee fi am ngandi contrat boo xam ne yaay dimbali waate mais kenn du la dimbali barke alxam yàlla am na ko mën na ko waaw allahumma min kulli karimin akramu man mm-hmm. laa moo haadala woo takramu asim la woo kullakan iman wala sami lisaani rahman wajihu bi sukur bi laa ko faan tu saaboo ma xaan diraan mm-hmm. mbër mi daa jàng nag daa jàng de <laughs> Aïcha merci beaucoup xale yi nee amul arrêt day daw rek ñeneen ñi teg si ne day mbooli macha allah tey ñu dalal ko tey moom Neup Touré ah, grand champion ndax ku ne Neup xam ne doomu Parcelles la waaye ku ne Neup xam ne doomu Kër Massar la

toog ak ñun waxtaan ak kon ñu ngi koy jaajëfal di ko kontaane di wax merci beaucoup nëpp jaajëfal nañ la kontaan nañ ci yow suñu borom yàlla na la yàlla defal jàmm defal la wér macha allah ndax uh, nit ku baax nga heure su ma la woowee téléphone rek des fois sax yaa may woo te duñu wax sax ci làmb ci leneen la ñuy wax kon nee naa la lien bi am na. ba pare waaye tamit tamit am na. non non yooyu yaa baax yaa oyof barke Seydina champion bi jërëjëf Aïssa laa ci àndaloon saa su nekk rek moom laa ci waaw sa caméraman bi Aïssa tamit Aïssa mu ñaawal bi waaw baa yeneen nee naa bu rafetee moom la billaahi waaye su baaxee non non te moom la non kii mënul filmé lu rafet <laughs> ndax lu nekk si xol feeñ si jëm waaw dëgg la de waaw te tubaab daane la daane la velo augmenter la civilisation de l'homme et de la femme ay waay barki yeneen bi kii mënul def lu bon de Aïssa ba am na borom kër waaw am na am na waaw ah. am na am nga Seydina Mohamed yu bëri waaw yàlla na nga ko gën a bari ñu doon njabootu lislaam yu lislaam du tiitaro barki alxuraan nga bokk si jigéen ñoo xam ne dañuy toog ëllëg seen njaboot di leen damoo barki Seydina Mohamed sëñ bi nag na nga muñal Aysa waaw waaw gis nga jigéen boo gis mu naan su ma doon góor bu doon góor la tamit du faj dara dëgg la wul taxawaalul deful dara liggéey la xam ñàkk tedd dégg nga ma ah. waaw falaayam nag ayca kontaan nañu nëpp jaajëfal nañ la merci beaucoup jox ñëpp dig daje ba beneen yoon ci beneen émission spéciale lamb jërë ngeen jëf